Abdoulaye Mbow ñu ngi lay nuyu. lay fay. Euh, ngay euh, journaliste euh, waaye itam analyste politique laaj bu njëkk bi avocat franco espagnol bu. Ousmane Sonko ñu inculpé woon ko euh, waaye ni ki euh, tey nag euh, am na liberté provisoire te war nañ ko expliquer sax war nañ ko expulser mu dem France noo jàngatee libération ndax mun nañ wax kumba am ndey la ak kumba amul nday ndax am na ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi ci kaso bi. waaw ah, jàpp naa ni gënum Juan que Euh, nit la ko xam ne ak fa mu jóge euh, defe naa ni yu euh, dugal ko prison Sénégal coow lay tool yi mooy gën a mooy bari gën a bari te te leneen léegi nag bàyyi nañ ko te conséquence bi bi ñu koy bàyyi effectivement mooy dàq ko dëkk bi mhm. maanaam lu tubaab di naan expulsion mhm. jàpp naa ni loolu leen doon xaar si li nga xam ne moo jëm si ki nga xam ne moo di avocat boobu te bokk si pool d'avocat Ousmane Sonko jàpp ko tamit yëkkati na coow parce que tamit gis nañu réaction ay avocats yu nekk sa euh, France mm-hmm. ak euh, ki nga xam ne mooy bâtonnier des avocats de Paris mm-hmm. maintenant nag euh, liberté bi ñu provisoire Euh, ba pare euh, nekk sous contrôle judiciaire jàpp naa ne am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi fi te leer ko euh, war nañ mën a bàyyi bàyyi mu ndëfu ndëfu parce que commencé jiital moo di mu mel ni Pape Alé Niang bokk si si di taskati ñu fekkal loxo loxo yi boo xam ne jamono jii ñu bari ñu ngi koy jooytu ñu bari ñu koy ngaña mm-hmm. te jàpp naa ne place am wala boog jàpp nañu ne place am di prison kon war nañ ko mën a bàyyi mu retrouver sa famille professionnelle mais également sa famille sa famille na ñoo xam ne jàpp na leen si lu ñu njortu wala boog ñenn jàpp ko ay délit d'opinion la ñu ko nag dañoo wax wala dañoo bind boobu ba léegi ñuy si kaso bi jàpp naa ni yooyu itam war nañoo mën a mérité li ñu xamoon liberté provisoire euh, euh, Cheikh Bara Ndiaye euh, may nañ ko liberté provisoire waaye procureur moo moo moo moo moo moo moo bañ Euh, ba jamono ji ba léegi mi ngi prison te man tam bokk na si ñi nga xam mi ngi def grève de la faim mhm. jàpp naa ni euh, ñeneen ñi ngi fii te si mel ni Mati Sarr Niane di suñu consoeur naa ay ñoom Oustaz Assane Seck ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne yàgg nañ ci prison bi te defe naa ne yooyu jàppee ñu bari dañoo wax wala ñu bind te jàpp naa ne nag euh, ñooñu itam mérito nañu li nga xam ne moo di liberté provisoire ñu war a mën a trouver seen seen seen seen ay mbokk. Mhm. kon deux poids deux mesures am na ci. du ma jàppee du ma jàpp deux poids deux mesures waaw waaye ko xëy na mën nañ ko jàppee noonu itam mais dans tous les cas am solo rek mooy euh, la ñu la ñu la ñu yombalal kenn. wala boog euh, euh, baral ko ba nga xam ne moom ci wàllu boppam lañ ko cee fan la ñetti fan la mu daal di mu daal di ñibbi defe naa ni war nañ ko mën a defal tam ay ay ay doomu Sénégal yoo xam ne ñu ngi fii fii lañ dëkk commettre euh, ñu ay actes délictuels maanaam fekk ñu leen ñuy toj fekk ñu leen ñuy taal fekk ñu leen ñuy def ay ñaawte ay wax la wala bind la jàpp naa ni ñooñu itam war nañu mën a fay ñu ñu daal di dellu ci seen ay ndox. Mhm. Euh, lan nga gis ni moo joué en sa faveur ba ñu teel ko bàyyi. bon joué en sa faveur mënuma teel ci teel am yoo xam ne dinaa ko ci kàddu maa ngi dund ne am na ay réaction France. Euh, xëy na am na ñuy waxtaan am na ay réaction ak pression yoo xam ne bàyyeekoo na euh, par voie diplomatique tàmbali si France wala si Espagne euh, am na ñu koy tudd waaye itam gis nañu ni réaction bâtonnière bi te te sa Paris itam mhm. teg teg nañ ko liir nañ ko te ñàkkul itam ñu ceewoon ko coow la doon gën a jur Sénégal que que que parce que bu ñu. Mhm. defe naa nag fi loolu la ñu tàbbi mais lu si mën ci am solo rek mooy. la euh, ñu bàyyi lu Juan Branco war nañ ko mën a bàyyi ñeneen ñoo xam ne jamono ji ñu ngi leen loxo Mhm. Euh, ñu wax ci euh, grève de la faim maanaam xiifal bi nga xam ne Ousmane Sonko moom tàmbali na ko euh, ba jamono ji sonn na lool ak ñenn ñi nga xam ne bokk nañ ci Pastef wala ay sympathisants lañ ku ci mel ni Alibal ji moom itam sonn na lool Pape Alé Niang ak chroniqueur Walf TV Cheikh Bara Ndiaye ñoom itam seen état de santé demewul noonu tey ñoom lan la ñuy risqué wala est-ce que bu nañ wax ni stratégie bu baax la grève de la faim bi nga xam ne ñoom moom lañu tàmbale stratégie bu baax la du ma ne stratégie bu bon la grève de la faim daal people euh, méthodologie boo xam ne yàgg na ci kaw suuf tàmbaliwul Sénégal Sénégal njëkkee woon ko fi te fépp foo dem ci àdduna bi daa fekk ay nit yoo xam ne dañuy tànn def grève de la faim mhm. moyen de risque la si ki nga xam ne dafa jàpp ne lañ ko tàcc jaaru dans le monde professionnel gis nga ay liggéeykat yu bari yoo xam ne parce que dañoo bëgg ñu recruter leen parce que dañu leen yoral xaalis parce que dañoo bëgg euh, amélioration condition de travail yoo xam ne dañoo observer de la faim ba obtenir génn pause hmm. donc dañuy jàpp ne rek moyen de nit nit ki si wàllu boppam moo koy tànnal boppam wala ay nit ñoo koy waxtaanandoo juboo ca euh, tàmbalindoo ko def ko fekk naa euh, loolu moom dañuy jàpp ni ba tey ak xiifal bi kañ moom euh, xam nañu ni euh, wér gu wàllu wér gu xam ne xëy na dina dina dina feebal xëy na dina gën a dina gën a yàqu euh, parce que tam nit yi yemuñu woor de ndax am woor a métti parce que maanaam xiifal doo lekk doo naan ba pare doo nangu ku la ku la xool ci wàllu wàllu docteur Euh, effectivement jafe-jafe bi du leneen du dul si wàllu wér gu yaram euh, loolu def naa ne mooy si conséquence bi. Mhm. et cas wu Pape Alé nga xam ne du guleet ñu tëj ko moom muy xiifal. waaw mais Pape Alé Niang laata sax euh, ñu koy jàppaat dañ ko ñu koy jàpp dafa na xiifal état de santé defe naa demul noonu jamono ji nga xam ne sax jàppuñu ko. Mhm. jamono ji jàpp ko état de santé demul noonu bu dool su xiifal donc ñun ñëpp dañuy tiit ñun ñëpp dañuy ragal te li ñuy xaar ci moom la xaar ko sax laay bëgg wax. mooy ñu daal ñu koy bàyyi mu war a mën a ñibbi këram defe naa ni place am nekkul prison ci liggéey bi muy liggéey ak lu tax ñu teg ko loxo euh, jàpp nañu ni euh, lu sëpp daal wala boog lépp sax aajowul jamono ji mu war a nekk prison euh, la gën mooy ñu ba ko ñi ñu ñibbi këram comme ñu waree mën a bàyyi keneen ak keneen tamit ñu ñibbi këram jëm si prisonniers yi nga xam ne ñu si bari comme ni ma ko waxee rek li ñu wax la wala la ñu bind la moo tax ñu teg leen loxo Euh, euh, par rapport leneen lañ jàppee loo xam ne xëy na gën a garaaw. Mhm. Euh, ñu wax ci réhabilitation Karim Wade ak Khalifa Babacar Sall mu mel ni delloon nañ leen seeni droit bi nga xam ne mën nañu bindu ci élection yi ba tax ñu mën a bokk ci présidentielle atum 2024 enjeu réhabilitation ñaari kaay lan la. mais eh, dafa kanam euh, lañ leen éliminé woon politique politique moo ko lal jàpp nañu ne jàllu politique tam la ñu lal ba ñoom ñu mën a duggaat ci ci ci géew bi duggaat nañ ci géew bi nag def naa ni mérité woon nañ ko mm. euh, ay citoyen sénégalais yoo xam ne dañoo am sañ-sañ dem wuy ji dañoo am sañ-sañ bañ a dem wuy ji wuy nañu am ay résultat donc li si am rek moo di ñoom ñooy ñooy duggaat ci làng bi kon boog ñoom ñoo war a liggéey Euh, si wàllu massification ñoo war a liggéey si wàllu waxin ñoo war a si wàllu programme ñoo war a liggéey ngir convaincre Sénégalais yi foofu mm. euh, la ñuy xam effectivement euh, enjeu yi du leneen si li ma jàpp loolu bokk pour mën a si li nga xam moo jëm ci élection bi. Mm. ndax jàpp nga ni ñoom am nañ chance sori ci élection présidentielle yi. ba jamono ji mënuma wax chance parce que jamono ji tendeer Euh, la ñuy andi ci discours xamaguma ko euh, la ñuy andi ci li nga xamoo di wàllu programme xamaguma ko euh, kan la ñuy convaincre pour mu ñëw lëkkaloo ak ñoom si wàllu leader si wàllu organisation ak boobu mu ci doon pour mën a yaatal seen réew xamaguñ ko Euh, donc sénégalais nañ koy jëlee ak nañ leen di teeroo ak nañ leen di déglu xamaguñ ko mhm. dañuy xaar ba yegg si cappaandaw ko su boobaa nag daañu gën a mën a mesurer mhm. li nga xam mooy chance yooyu ngay tudd mhm. euh, justement euh, Khalifa ak jaar-jaaram ak jamono ji digganteem ak Sonko ak waaye yi sax laay wax ak ak Karim Wade ndax jàpp nga ni ñoom seen discours mën na convaincre sénégalais waaw moom laa lay wax nii ah, ah, loolu mënu ma wax ni du convaincre sénégalais wala dina convaincre sénégalais maa la euh, lu ma la wax rek mooy xaar ba ñoom ñu xëcc discours face au sénégalais. pour ñu xam quelle sera la réaction des sénégalais euh, su boobaa nag euh, ñoom daañu mën a xam parce que acteur politique lañu. que politique moom comme ni ñu koy waxee rek du biir day xëy wasin te comportement dafay évoluer day changé par rapport ak donc su boobaa nag daañu gën a mën a daañu gën a mën a jauger. d' accord euh, ñu wax ci candidature euh, Benno Bokk Yaakaar ci élection yi ba tey euh, ay rumeur ñu ngi annoncé Amadou Ba moom la ñu fas yéene tànn mu doon candidat Benno Bokk Yaakaar bu dee dëgg la est ce est ce que choix bu baax la pour Benno. waaw du doon choix bu bon parce que itam Amadou Ba am na li nga xam ne moo di jaar-jaar bi am na profil bi comme Benno biir affaire moom am na yeneen profil yoo xam ne ay présidentiable lañu. donc lu ci mënti am rek moo di euh, ñu jàpp ni moom dañu koy tudd waaye du du du lu ñu dëggalagul. Mhm. Euh, dëggal bi ñu ngi xaar président euh, Macky Sall bi président APR ak benn annoncé ko comme ni ñuy dëgg dëggalee saa wu Mahammed Boun Abdallah Dionne am ñu ko bind comme ñeneen ñu ñuy dëggalee saa wu Abdoulaye Daouda Diallo. Mhm. donc fu mu toll nii daal bu mu ci mënti doon ay profil yu baax la en attendant pour Benno ay profil yu baax la ci seen jaar-jaar ak ci seen i jëfin. en attendant de voir euh, effectivement euh, euh, l'ultime choix a am tam mhm. tey ñu bëri jàppoon nañ ni président Macky Sall bu yàgg waroon a tànn candidat Benno Bokk Yaakaar nit yi waroon nañ xam bu yàgg kan mooy candidat bi mais ba jamono ji mi ngi tardé ci choix lan nga jàpp ni moo ko retardé. moom si wàllu boppam foo créer le cliché autour de lui. ñu mm-hmm. nekkal bi candidat yi à la bëri nañu. te moom dem na sax ba ne man mënutag la sax def choix la bu fekkee ni dañuy jàpp ni sax moom def na choix te xëy na xelam ak xolam am na koo xam ne tànn na ko ba pare. Mm-hmm. waaye tamit euh, yéex bi tam stratégie la ci wàllu politique. parce que tamit ngay gën a yéex xëy na di nga gën a limiter les ngay gën a yéex di nga mën a créer gën a mën a créer consensus nga gën a yéex xëy na di nga gën a mën a resserrer Euh, donc yooyu yëpp doxalin la ak euh, calcul la donte la dañuy fàttaliwaat ni euh, ku mu tam ak ku mu ci doon biir Benno dina am yeneen candidat biir affaire dina am yeneen candidat Abdoulaye Mbow Rewmi FM mu ngi lay sant di la gërëm. waaw kay jërëjëf. merci beaucoup di fàttali journaliste nga waaye itam analyste politique.